mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ci seen ànd ñun fii ci rajo Rewmi FM tey nag ñu am ci mbégte mu yaa di dalal ki nga xam ni moom moo di Djibril Thiaw nekk bokk moomeel bu commune bu Réfane monsieur ñu ngi lay dalal jàmm ci émission gox bi. Euh, maa ngi leen di fay di leen nuyu Mbemba di leen wax jërë ngeen jëf. Mhm. di nuyu mbokk yi ñuy déglu yëpp ci réew mi FM. ci mm-hmm. seen émission gox bi ci 97 point 5. Mm-hmm. ñu bàyyi la ngay présenter rek say les say vœux. waaw may ñaanal ñëpp atum jàmm. Mm-hmm. atum naataange. bu ànd ak atum wér. yàlla jële fi mbas mi. atum wér ak wérle. yàlla xiinu si njub. te yàlla aar suñu gox yi. Mm-hmm. aar Sénégal. Mm-hmm. aaral ñu suñu président de la république Macky mm-hmm. aaral ñu kilifa diine yi ak kilifa aada yi. aar Sénégal yëpp. aar umma islamique bi yëpp. aar àdduna bi. mu nekk lu am solo. yaay ku njëkk ki nga xam ne dalal nañ ko ci at bu yees bi muy atum mille vingt et un. di la gërëm itam ñu ngi ñu invitation bi. reefaan nga jógee nii fraîchement. Mhm. monsieur le ñu ngi lay gërëm bu bàyyi tam di la santaat ci euh, confiance bi alors dañ koy dooree rek ak coronavirus bi monsieur mhm. gis nañ ni mbas mi ak ay loraangeem mi ngi yokk. Mhm. bés bu yàlla sàq rek euh, bu nit génnul àdduna li mu ñi nekk réanimation mi ngi yokk. tey sa jàngat bu njëkk ci deuxième vague coronavirus bi. Euh, sama jàngat bu njëkk. Euh, mooy comme ni ñu gis ñun ñëpp gis nañ ko. vraiment mu ngi mu ngi yokk ci ay anam yu jéggi dayoo. Mm-hmm. et pourtant bu ñu xoolee euh, vague bu njëkk bi ak résultat biñ ci amoon ci xeex bi daf ñuy conforter ci gëm-gëm bi ñu mosoon gëm ne mbas mi mën nañ ko xeex parce que ay la yéwén amoon na ay résultat ba mbir mu wàcc lool. Mm-hmm. mais je pense que résultat boobu ñu amoon. moo tax ñu xaw a naagu bi ñu naagoo ñu daagu <laughs> daagu boobu moo ñu indi lii <laughs> euh, mais ni muy doxee nii bu ñu deful attention <laughs> mën na indi yoo xam ne dina ëpp ay loxo parce que damay jàpp sax ne déjà ëpp na ay loxo parce que bu ñuy dem bay wax ne juróom-ñetti nit faatu nañ ci benn bés ci mbas mi di la wax lu ëpp ñeen fukki nit ñu ngi ci sous réanimation pense que loolu lu jéggi dayo la mhm. te réanimation mhm. def di lu doy waar mhm. ndax da di foo xam ne malade bu fi tolloo li war ci moom ci jumtukaay dafa bari de sorte que pour nga jël ci en même temps en charge quarante cinquante soixante cent personne day jafe te ku toll ci phase boobu te jëluñu la en charge li ëpp ci ay say chance mooy da ngay ñàkk sa bakkan hmm. kon vraiment na Sénégal yëpp ressaisir mhm. ñu jógaat mhm. nañu xeexe woon respecté mesures barrières yi takk mhm. masque yi raxasu euh, wàññi yenn rassemblement yi nga xam ne mën na ñàkk ñu defaat ko bala muy ëpp loolu nga jàpp nga ni buñ ko defee dina mën a wàññi ko bu baax a baax absolument les les mêmes causes produisent les mêmes effets la defoon ba mu wàññeeku di takk masque di moytu di raxasoog saabu di def gel muytu yenn rassemblement yi loolu lañ defoon ci première vague bi ba yàlla defal ñu sutura mu wàññeeku lool bu ñu defaatee les mêmes choses nous aurons les mêmes résultats maanaam mbas mi wàññeeku parce que nag comme ñun yàlla dogal na xamaguñu kañ la ñuy jot ci vaccin te même bu ñu mënoon jot ci vaccin tey dafay cher parce que duñ ñu ko may dañuy dem jëndi ko te mën nañu ko euh, xeex ci ay gestes yoo xam ne ça ne part pas très cher je que jënd masque. Mm-hmm. raxasu moytu ndaje yi nga xam ne mën na ñàkk. Mm-hmm. moo gën a yomb. Mm-hmm. ñuy dem di wuti vaccin boo xam ne ñu dañu ñuy wax ne sax. xëy na mais ñu ngi koy yëkkati mais dalul xelu sénégalais yi bu baax. déjà comme dalul xelu sénégalais yi. ah. te encore conditions yi ngay conserver vaccin bi mooy soixante dix degré. suñu réew yu néew doole yi sax amaguñu technologie boobu. Mhm. mais kon nañu fexe li nga xam ne mën nañu ko. muy euh, geste barrière yi. Mhm. mais ñu respecte ko. parce que je pense que am na fu ñuy toll. Mhm. mais on n'aura pas besoin ñun ñuy dem di xeex di xëccoo ay vaccin on n'aura pas ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy woo keneen ndimbal. te xaalis bi ñu ciy def. ak indi vaccin boo xam ne ça pose déjà problème ci xelu Sénégalais yi. même si y a pas de raison que mu pose problème. parce que ñun ñëpp. bi ñu nekkee xale ba léegi dañuy ñàkku mm-hmm. et ñàkk yooyu ñu doon ñàkku ci tubaab yi la daan jógee donc bu fekkoon ni tubaab yi dañ ñu bëgg a lor ci vaccin mm-hmm. vraiment ñun bi ñu nekkee xale ba léegi kon ni fekk ñu lor ñu bu yàgg indiwaat couvre fe bi ànd nga ci oh, ngir ñu respecter mesures yi bon euh, c'est-à-dire man euh, euh, dama bëggoon parce que dama déglu benn jour mm-hmm. je pense que benn suñu benn comme compatriote dama ko suivre à travers une radio mu ne foofu en Allemagne dañu nekk ci couvre-feu mais doo gis sax policier wala kii homme homme de tenue ci mbedd bi. Mhm. mu ne les Allemands d'eux-mêmes bu ñu couvre am feu am na ñooy toog seen kër. Mhm. man je pense que mën nañu bañ a dem ci couvre-feu. Mhm. mais au moins sénégalais jël sur eux-mêmes la responsabilité guddi jot na man liggéeyuma guddi damay toog sama kër mais ñu bàyyi ñi nga xam dañuy liggéey guddi nag. vraiment ñu dem liggéeyi. mais gis nañ fi bañ ko defee effet bi mu am fale ñu forcer nit ñi ñu dem seen kër. loolu tey buñ ko indiwaatee itam. c'est-à-dire eh, looloo tax may lancer un appel au Sénégalais. Mhm. ñu bañ xaar ku ñu mhm. forcer. citoyenneté ñu mhm. jiital citoyenneté. jiital bëgg suñu bopp. jiital responsabilité du citoyen. ne lii. man liggéey naa ba wàcc seize heures. liggéey naa ba wàcc dix sept heures. liggéey naa ba wàcc dix damay toog sama kër. ki nga xam ne nag liggéeyam guddi la. Mhm. nañ ko bàyyi moom tey mu dem liggéeyi ndax bu weer bi dee mu am lu mu yore këram. Mhm. man pour man ñun citoyens yi. ñun mhm. sénégalais yi. par nous-mêmes. ñu imposer suñu bopp yenn restriction yi. lépp lu mën a ñàkk. ñu teg ko ci suuf te li nga xam ne mën na ñàkk. ñu dem doxi ko te bu ñu koy doxi aussi. ñu respecter en même temps les gestes barrières. bu njëkk bu mbas mi njëkkee woon ñëw dañu gisoon ni mag ñi lu doon gën a sonal waaye itam bii itam bàyyiwul ndaw ñi. waaw bàyyiwul ndaw ñi euh, mais boo gisee ba léegi tamit mhm. euh, ndaw ñi mu ngi leen di dal mhm. mais daanaka loruwuñ ci mhm. mag ñi lay lor loolu aussi man en tant que jeune kenn ku nekk war na ne mais attention man donte bul ma dalee du ma lor mais je ferai tout ba nekk du ba du ma nekk vecteur de transmission bi koy jox mag mu lor ko parce que bu fekkee ni yow xale nga mu dal la loru la mais nga jox ko mag sa papa wala sa yaay wala sa maam mu lor ko. Mhm. mais en quelque pa quelque part tu es responsable. ci ci moom li ko dal noonu. Mhm. donc nanu lànk. Mhm. donte du la lor. mais lànkal ne man du ma nekk vecteur bi koy transmettre. ka muy lor. waaw jàngalekat nga yoon itam école yi ubbi na ndax mënuñu yokk tey jumtuwaay yi ndax xale yi dañuy dem lekkool am na ci yenn école yoo xam ne tax lu yàlla xam na doy na. Mm-hmm. masque bi sax lu fay tumuranke la. est-ce que tey waruñu gën a renforcer foofu itam ngir jàngoro ji bañ dugg foofu def fa yoonu tool. waaw effectivement foofu aussi d'accord naa ci ak yow parce que déjà bi école yi tijji man li ma xalaat mooy bi mu école yi tijji surtout ñun gox gox goxaar yi. ci la ñuy ñëw sax ci la ñuy ñëw. waroon nañu gën a mën a accompagner écoles yi. <laughs> pour ci mbirum masque yeeg yu demee noonu. Mhm. mais dafa fekk ni euh, budget deux mille vingt bi. Mhm. dafa fekk kàttan bi ñu ci amoon yëpp. Mhm. mu demoon ci première vague bi. vraiment mu nekkoon lu jafe-jafe. mu may rappeler rek lu ma lu ma sama benn collègue maire waxoon le maire de de la Médina. Euh, Bamba Fall. Euh, dañu toog benn jour mu ne ma ah boobu la affaire bi soog a commencé mu ne monsieur le maire lii ma gis nii ku deful attention di nga teel a xoox. dañu dem ba mairie yëpp a xoox. ba fina finalement amatuñu woon lu ñu def. pour yëkkati ko dugal ko ci mbas mi pour gën a aar xale yi. mais comme vraiment les budgets de deux mille vingt et un sont man je pense que war nañu jógaat mhm. nañu defoon ci première vague bi takkuwaat takkuwaat mhm. wuti ay masque jox xale yi mhm. ak jàngalekat yi wuti ay gel wuti ay ay savon vraiment tout ce qui est nécessaire lépp lu ñu man pour accompagner xale yi parce que transmission bi ci biir xale yi ak xale yi ni ñuy jegeñanteeg et cetera mën na gaaw te bu gaawee mooy gënal yóbbu mbas yi ci biir ci biir ci biir njaboot yi parce que néew na tey Sénégal njaboot gu amul. Mhm. benn wala ñaari élèves yu nekk ci mhm. école ba. donc ça veut dire que bu contamination bi lawee ci biir école yi rek. Mhm. mooy Sénégal yëpp contaminé nañ leen. parce que. ñuy dalal rek euh, maire bu euh, commune bu Réfane di euh, Djibril Thiaw 88 628 84 84 wala 88 628 85 85 monsieur le maire ñu dem waxtaanee commune bu Réfane. tey su ma jumul voté ngeen budget ba pare. Mhm. no voté guñ ko. Mhm. mais c' est prévu pour le douze. Mhm. le douze janvier incha allah. ko prévoir ndax tey li nga xam ni moom moo jëm ci coronavirus bi wala ban état des lieux nga ñuy defal sa commune ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci tolluwaay coronavirus bi. waaw euh, bu fekkee ni ci cas contamination yi la. Euh, ay la yowin deuxième vague bi yàlla ak ñu ci suturaal. amaguñ ci benn cas. Euh, première vague bi am na benn cas bu ñu ci signalé woon. mais yàlla aussi def na sutura. Mm-hmm. foofa la yem. Mm-hmm. Euh, pour le moment daal. Mhm. touchons du bois. Mhm. ñu ngi sant yàlla bu baax. Mhm. amul vraiment euh, amul vraiment. benn cas fa nemmeeku bu ñu fa nemmeeku. maintenant euh, bu fekkee ni maintenant pour accompagnement commune bi la. laata euh, accompagnement ban stratégie nga teg ca commune ba ngir jàngoro ji bañ fa law. waaw en fait ñun bi bi bi bi bi bi ñu déclaré feebar bi. je pense que nous avons été la première commune du département de Bambey. ñu mettre en place euh, benn comité euh, de lutte. Mm-hmm. benn comité de riposte. Mm -hmm. loolu aussi bu ñu ko defee euh, vraiment nañ ma may. Mm-hmm. ma gërëm ci sant ji. Mm-hmm. le maire honoraire de la commune de Réfane. muy oustaz Abdou Faye. Ah. ndax moom moo moom moo dégg feebar bi. gis li nga xam ne Serigne Mountakha Bachir def na ko yëkkati deux cent millions jox ko état. moom aussi mu ne damay topp ci tànk Serigne Mountakha Bachir. mu yëkkati trois million woo ma jox ma. ma ne ah kon de ñun amatuñu lay. kii soññ nañu. à partir de ces trois millions ci lañu def. woote réunion. Mhm. le sous-préfet de Lambaye ñëw. Mhm. ñu koy nuyu au passage di ko remercier. Mhm. le médecin chef du département de Bambey ñëw. vraiment ñu invité les différents acteurs. ñu ñëw ñu mettre en place benn comité de riposte. bi ñu mettre en place comité de riposte. d'autres bonnes volontés. ñëw nañu indi seen ñëw fekk suñ ci. la commune def na la man. Euh, les femmes. am na benn les femmes de Ndorong. ñoo mhm. xam ne dañuy defar ay saabu yooyu. Mhm. ñoo def lañu moom. Mhm. am liñ man les femmes de Pessi Ndiane en tout cas beaucoup de groupements de femmes. ñëw indi seen i seen i. contribution seen i contribution. le le pharmacien. Euh, docteur tin mhm. indi indi indi contribution. Mhm. mais même les partis de l'opposition. Mhm. dañu daje. Euh, indi boo dajale li ñu am. ñu indi ñu ko ci biir comité de riposte boobu. donc muy loo xam ne te un élan unitaire. boo xam ne vraiment ça nous avait permis ñu def benn lutte bu am solo. donc euh, loolu aussi vraiment ñu ñu rafetlu ko. di ci woowaat nit ñi. que ñu ak deuxième vague bi ak deuxième vague bi. le même engouement bi ñu amoon. <laughs> Euh, même engagement bi ñu amoon. <laughs> même solidarité boobu ma doon na bi ñu nemmeeku. <laughs> ñu continuer ko. ba nga xam ne xëy na non seulement yàlla dina ñu aar. aar commune bu Réfane ci ci mbas mi. mais mu génne ko Sénégal. parce que fi mu nekk nii. Uh, nit ñi dañuy jongante ci lu baax mm -hmm. man li ma wóor mooy am na yenn engagement yoo xam ne bu ñu ko fësalee am na yenn démarche yoo xam ne bu ñu ko fësalee beneen commune bu bu ko dégg. mën na ne attention mais pourquoi pas nous. Mhm. donc jongante yu mel noonu. ci lu mhm. baax. Mhm. ci engagement ci ci citoyenneté. je pense que mooy tax. Euh, ñu ñu ñu jëlee fi mbas mi. ensuite euh, mooy dimbali aussi. le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ma koy nuyu au passage euh, di ko féliciter aussi ci ni nga xam ne ni lay gérer mbas mi. ci ci ci ci ci ci sous la supervision du du président de la République mm-hmm. vraiment il faut ñu féliciter ko moom ak ay équipe am mm-hmm. toutes ces équipes mm-hmm. muy vraiment docteur Khemes ñoom Pena ñoom docteur Seydi mention spéciale vraiment tout le personnel de santé vraiment ñu ngi def seen kéem lay kattan kon ñooñu aussi bu ñu leen gënee bëgg a dimbali ñun les communautés nanu leen war ne lii ngeen ñuy digal ñoo ngi ci maanaam liñ ñuy digal pour que feebar bi du law ñun nañ ci nekk encore une fois euh, loolu laay wax toujours dama leen ne mesure barrière geste barrière mhm. c'est certes des décisions politique mais c'est des décisions politiques prises sur mhm. recommandation de scientifique maanaam ay scientifique ñoo toog mhm. ay docteur ñoo toog ay ñoo seen xam-xam màcc ci mbirum épidémie ñoo toog ne lii ak lii ak lii ak lii moo war loolu dong le président de la république wala ministre de l'intérieur wala ministre de la santé. Mhm. di transformer en décision. Mhm. kese ñu ci yokk virgule ñu ci wàññi virgule donc loolu mooy wane ne kenn ku nekk boo bëggee mucc. Mhm. ki nga xam ne boo feebaree boo demee mu ne dama lay pikiir nga nangu nañ ko jàppee comme ordonnance. les mesures barrières la. Mhm. nañ jàpp ne dañu dem. ordonnance ordre voilà nañu dem ne jàpp dañu dem hôpital. Mhm. médecin bind ordonnance. Mhm. nañ jënd leen lii jënd leen lii jënd ko naanee nii na ngeen ko euh, diwoo nii na ngeen nañ leen ko piqûre nii. c'est exactement la même chose. pour man c'est des ordonnances. médicales. boo xam ne xëy na il fallait une décision administrative. boo xam ne état rek moo ko mën jël. le ministre de la santé moo ko mën jël wala ministre de l'intérieur la république. mais yow ak sa équipe pare ngeen pour wàccaat ci terrain bi ngir gën a ñaaxaat askan wi ci jàngoro gi ni mel. absolument pare nañu et pour vous dire toute la vérité. Mmh. <laughs> Euh, on n'a jamais baissé les on fait toujours des alertes toujours ñoo ngi def ay alertes et à chaque fois que ñu am occasion. <laughs> saa bu ñu amee occasion wax ak nit ñi. <laughs> wax nañ leen attention lii nii demagut mu ngi fi. day lore te bu ñu moytoo yàlla mën cee musal c'est très simple. et de plus en plus euh, nous sommes obligés d'aller au devant parce que ñun je ne sais pas yaa ngi suivre l'actualité mmh. nous les maires euh, mbas mi déjà mu ngi ñuy sonal ah parce que déjà mu ngi yóbbu suñuy collègues. Mhm. ñoo xam ne vraiment ay nit ñoo xam ne ñu baax. bi ci bi ci mujj démb rek maire Mbelaka jaw voilà mhm. nit ku baax géej géej géej nit ku mhm. baax. koo xam ne vraiment xajaatoon na ci ci àdduna bi. notre collègue Bekay Diop xajaatoon na fii sa eh, Diop mm-hmm. xajaatoon na fii mm-hmm. des gens yoo xam ne vraiment sympa mm-hmm. ñu amaloon njariñ seen gox te mbas mi bu leen dalutoon naam yàlla ku jeexal dem mais au moins ñu gën a sabablu pour vraiment aar les personnes à risque. Mmh. voilà. kon tey mën nañ jàpp ni yéen ak euh, équipe bi ngeen àndal foofu fas yéene ngeen wàcc mais monsieur le maire itam marché yeeg luuma yeeg yeneen yi nga xam ni bërëb yi loo xam ne dafay dajaloo ay nit. Mhm. ndax matuwaay itam ñu ngi koy jël foofu lavage yi parce que en un certain moment da doon dem ci yenn marché doo gis euh, li nga xam ni nag di nga fa mën a raxasu sa loxo dugg wala sol masque bi ndax foofu ca Réfane li ni mel yéen a ngi koy bàyyi xel. waaw il faut avouer que. pour les rassemblements moom. Mhm. muy marché ak xew yi. Mhm. ba léegi dañ ci am problème no il faut l'avouer parce que nit ñi euh, ay la yoween quelquefois dañuy jafe canaliser aussi. Mhm. c'est vrai marché yi ay liggéeyukaay la. moo tax fi mu nekk nii euh, tëj ko dina jafe. vraiment pour man sax ànduma sax ci ñu tëj ko. Mhm. mais au moins ñu def nit ñi encore une fois. ah ndax yéen buñ ñu ko tëjee da ngeen di jooy ay patents ak yooyu noonu parce que yéen da ngeen jàpp ne koom bi itam day na sax. waaw non en fait. Mhm. xam nga sax ñun marché yi. Mhm. li ci mairie yi gagné jarul bañ ko tëj mais li ci nit ñi gañe moo tax waruñu ko tëj parce que bu fekkee ni marché mënoo ci am euh, lu ëpp cinquante mille francs ci journée bi kooku tëj ko feebar bañ law moo gën. mais yow cinquante mille francs ya ca bay am. da ngay jàpp ne xëy na am na ñaar téeméer wala ñetti téeméeri nit. yu fa xëy yoo xam ne kenn ku ne yóbbaale na junni wala ñaari junni këram. loolee moo am solo ba duñ ko mën tëj. mais bu dee taxes yi ci mairie bi am rek. yooyu c'est pas très important parce que bariwut en réalité. mais la nga xam ne nag moom la ka fay ñëw am fa mille francs ka fay ñëw am fa 2000. ka fay ñëw am fa 5000 ka fay ñëw am fa 10 000. ñooñu ñooy bari. te mille boobu ak 1000 francs boobu ak 10 000 ñoo yor kër ya donc loolu tax souvent pour nga tëj ko dina jafe par vraiment lenn daal laa bëgg. Mhm. marché yi xaw na compliqué nit ñi dañuy liggéey. Mhm. mais ayla la yéwén xew yi. Mhm. les cérémonies familiales. wàññi ko wax dëgg yàlla mën nañ ko wàññi. mën nañ ko wàññi. mais léegi da ngay gis ay la yéwén daanaka nañ ko daan defe lañ koy defewaat. te loolu ça pose problème. te tudd. wax dëgg yàlla mën nga xool ñi ñi ñi gën a jege imam bi ñëw de manière très ñu tudd xale bi. Euh, rey xar bi vraiment mu jeex. Mhm. bañ indi mbooloo mi bañ a indi mbooloo mi. Mhm. Euh, lii bu soobee yàlla bu ñu ci defee bu ñu ci jëmbatee fula. Mhm. léegi mu jeex. ñu dellu ci nañ daan dundee. ñi bëgg céetal céetal seen céet bu ñu bu leen neexee ñu woo Sénégal yëpp ñu ñëw ñi bëgg dem làmb ja dem làmb ja ñu bëgg parce que tamit fi mu nekk nii xamuñu ne en réalité ñu ngi lor ñeneen sax en réalité les acteurs culturels ak les sportifs ñoo leen di lor parce que ñooñu xëy na am am nañ ci ñoom prise. Mhm. de sorte que mën nañ leen du fi amee. mais bu ñu leen ko teree ba pare kon ne di def les cérémonies familiales. Mhm. muy gën di law ñoom kañ nañu jëm kañ nañuy reprendre seen activité activités te seen i njaboot yi ñu war a dundal. Mhm. am na ñoo xam ne tey pour ñu dundal seen njaboot mais dañuy tëgg soirée loolu mooy moom la ñu tànn muy seen métier. am na ñoo xam ne tey. kon comprendre nga leen seen. Euh, li ah ñuy ñaxtu ah comprendre naa leen. mais aussi Euh, foofu euh, comprendre naa aussi état. Mhm. loolu tax damay lancer un appel au président de la république. Mhm. ni mu def ak les acteurs culturels. Mhm. yokkat seen enveloppe. na def ak les acteurs ak les sportifs. na def ak les sportifs maanaam pour nañ leen appuyer waat. loo xam ne dinañ ko mën a séddoo. parce que tamit euh, sportifs yi nag. am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla ci la ñu yor seen kër. donc bu ñu toogee dix mois. xëyuñu gontuñu. Mhm. day metti te xëy bi aussi parce que liy jigi football. Mhm. dem na dañuy football sans sans spectateur. Mhm. loolu ku ko def ci làmb doo doo ci génn. ku def ci làmb doo ci génn. ku def làmb te jaayoo billet. quelle que soit la force de tes sponsors. doo ci génn. Euh, ah, ci billetterie nga mën a. ci billetterie ci peut être boo amee say sponsor ak yooyu. xëy na ñu ñu ñu fay quatre vingt pour cent des dépenses. say billet ñëw. complété vingt pour yi ci des peut-être li ci des nga am ci tuuti marge de bénéfice. Mhm. mais euh, tëgg làmb sans sans sans sans billetterie. moom nërmeelu la nërmeelu lay doon. Mhm. voilà alors monsieur le maire ñu waxtaanee commune Réfane depuis 2014 su ma juumul yaa ngi ci bopp maire bi. effectivement le maire tey la lañ mën a jàpp tey résultat boo xam ne tey maire Djibril Thiaw maire bu Réfane teg na ko fi ci diwaanu Réfane ban réalisation lañ jàpp ni depuis 2014 ba nga fa nekkee ba tey. Euh, dina jafe euh, mais ñu jéem. jukki si rek ñu jukki ci. Mhm. Euh, peut-être mën nañ ko sax def par secteur bu ñu bëggee. ci wàllum njàngameeg njàngale bi monsieur le maire lan lañ mën a jàpp ci commune bu Réfane. alors ci mbirum njàngameeg njàngale mi. Mhm. bu ñu bëggee xam lan lañ fa def nañu départ ci lan lañ fa fekk. Mhm. bi ñuy ñëw ci commune bu Réfane. y quatorze écoles élémentaires. Mhm. ak deux collèges. Okay. le collège de Réfane ak le collège de Ndarep. Mhm. alors fii may wax ak yow. Mhm. école élémentaire yi yokkuwul. on est toujours ak quatorze école Euh, même si maintenant école yi ñu ngi màgg. di dem ay douze classes. mais nous sommes aujourd'hui à trois collèges à un troisième collège. à Réumao. et un lycée. Arefan. lycée bi pare na. lycée bi ñu commencé nañ jàng di suñu première génération bi def terminal mhm. am nañu bac daaw. muy loo xam ne. Mhm. Euh, da di dafa bokkoon ci li nga xam ne suñu ambition la woon. Mhm. parce que euh, élèves yu bëri bu ñu amoon BFM Refane wala Ndareb. dañ leen di orienté ci ay dëkk yoo xam ne lycée ya fa nekk souvent dañu am problème pour accueillir élèves yi. mais aussi élèves yi seen wéyjur yi dañuy am problème pour fu ñu dëkk. pour que leen héberger ci dëkk yooyu. Mhm. ñu ci bëri noonu la seen jàng jaar yàqu. donc il fallait régler ce problème là c'était une urgence. Mhm. Euh, bu ma dee maire di wax lycée ak collège. Mhm. les gens vont se mais attention loolu compétence su conseil départemental la. effectivement compétence conseil départemental la mais ñun ñoo ko réaliser la mairie. ci naka. ci naka euh, le ministre Serigne Mbaye Thiam bi muy nekk ministre de l'éducation nationale. dafa ñëwoon ouverture des classes. ñu joytu mbirum lycée bi. mu ne ah monsieur le maire je sais que Réfane moom vraiment toll na ci am lycée waaye nag du ñu ubbi lycée du ñu ubbi classe de seconde. ci abri provisoire bu ngeen bëggee am lycée. Mhm. da ngeen di tabax ci la jële suñu responsabilité dans la commune. Mhm. à la mairie ñu dugal ci suñu budget lu ñu construire ay classes. Mhm. def délibération sur un hectare et demi. dem construire fa ay classes c'est la mairie équiper ko. Mhm. yóbbu fa ndox. Mhm. daal di constituer suñu dossier pour demande d'ouverture de classe de seconde. Mhm. ànd ci ak à l'époque l'IA de Diourbel mon frère Gana Sène mu accompagner ñu. ba dossier bi dem. ba son excellence le président la république jël décision. autoriser ñu ñu ubbi ay classes de seconde. donc tout la fa nekk la nekk tey ca la ñuy wax lycée de Réfane. toutes les classes ont été construites par la commune. équipe par la commune. yóbbu fa ndox. tout tout. léegi amatul benn problème foofu. Euh, non bon en fait am na problème parce que il faut ñu dolli ay classes parce que mu ngi màgg. Mhm. mu ngi màgg. Mhm. donc il faut ñu dolli ay classes. Mhm. donc euh, loolu. fo noonu la demee. est-ce que yaa ngi ciy jot soññ wala ma bàyyi la nga continuer. même procédure lañ def. ak le collège de Réwmao. xam nga autoroute à péage Ila Touba. dafa couper la commune de Réfane en deux. zone nu Réwmao bi mu nekk au nord. zone nu Réfane ak zone nu bi nekk au léegi zone réew moom bi nga xam ne ci collège bu Réfane lañ daan jànge si bi leen autoroute à bi coupé dañuy def de grand détour pour ñëw jàng si. Mhm. parce que nekkatul fu la neex nga traversé. da ngay def détour bu mag. autoroute à péage bi voilà très bien. Mhm. Mhm. pour mën a ñëw. alors yàlla dogal. Serigne Mbaye Thiam dellu si fa encore. dans le cadre du PAEF. Euh, ñu posé waat que la même doléance. mu jox sur place. instruction mhm. à l'IA de Diourbel. Mhm. ne ko bu ñu tabaxee classe na nga fi ubbi classe de sixième l'année suivante. Mhm. ñu defaat la même procédure la commune je dis toujours. la nekk tey ca CEM réew maaw collège réew maaw. la fa nekk lépp ñoo ko tabax ñoo ko équipe l'IA de Diourbel doxe instruction euh, le ministre de l'éducation nationale. ba ñu ubbi. le collège de Réewmao. kon daal mbawalu njàng meeg njàngale bi. waaw am na ci ay avancées. am na ci ay avancées si ajoute. ñun ñoo commune bi njëkk équiper toutes les écoles élémentaires mhm. de la commune en matériel informatique et en matériel de reprographie sur fonds propres ba tey sur fonds mhm. codec mhm. maanaam le collectif des directeurs d'école xam nga ku xam jàngale di nga xam ne léegi gars yi dañ nekk ci li ñu wax curriculum d'éducation de base nga xam ne léegi ni ñuy ni ñuy évaluer xale yi lu ci ëpp dañu koy imprimer ci machine ci dañu koy photocopier jox ko xale yi ñu ñu ñu wu ci ñun ñoo njëkk a matériel de reprographie. bu mhm. puissant. Mhm. jox ko le codec de la commune de de Réfane. Mhm. joxaat leen beneen encore. mieux ñu ne les écoles al azhar yi nekk dans la commune xëy na bokkuñu trop ay préoccupations ak les écoles françaises ñoom aussi ñu jox leen seen matériel de reprographie ñu dem à part ensuite le codec même di département de Bambey man maire Réfane maa leen njëkk a en matériel de reprographie le codec du département laa wax waxootuma <laughs> codec commune bi mhm. ensuite mhm. Euh, bi ñu commencé ba léegi mhm. euh, chaque année li ñuy jox fourniture scolaire scolaire école yi nga xam ne français la ñuy jàng la même chose la ñuy jox al yi parce que ñu man li ma gëm mooy dénkuñu ma njàngum tubaab tubaab kese. Mhm. am njàng lañu ma dénk. Mhm. donc doomu Refane. Mhm. lu mu bëgg jàng bu dee tubaab. bu dee arab bu dee alxuraan ak lu mu bëgg a jàng rek. ñun suñu rôle mooy ñu gunge ko ci loolu. donc école al azhar yi fa nekk. ak école française yi. on les a mis sur les mêmes pieds d'égalité. nous nu faisons aucune différence. ci ci ci ci dotation yi ñu leen di jox aucune différence. voilà ci wàllum njàng meeg njàngale moom sax actualité bi ci fan yi dégg nga ko euh, programme bu ñu ne ay éducation sexuelle lañ ci dugal. Mhm. yow prof euh, jàngalekat nga. Mhm. Euh, sa sa xalaat ci wàll wi ni mel ndax position njiitu réew mi doy na la. position bi doy na ma. et ça a été très clair. Mhm. un président de la république. qui dit que tant que maa ngi fi. loolu du fi am. mais lu ñu bëgg leneen. man kay li ma doon xaar mooy. ñii xëccoo réew mi yëpp. te nekk ci opposition bi. Mhm. ñoom tamit kenn ku ci nekk na ne su ma ñëwee du fi mbaam tànk maa ngi fi. bu ko defee problème bi réglé. da nga jàpp ni ay spéculation la. non no seulement ay spéculation la. Mhm. mais nañ def attention. Mhm. tu sais les lobbies yenn lobby yi nekk ci dëkk bi. muy homosexuel yeeg ñu demee noonu. ma bañ a lim pour bañ a tooñ. <laughs> ils sont très forts en matière de communication. yenn saa yi. ñooy alimenter débat. te bu ñuy alimenter débat. Mhm. dañu koy jaarale ci koo xam ne nit ñi dañuy foog ne il est contre. dañuy dem fekk benn waay rek. Mhm. ne ko soulever le débat sàngam. bu la neexee sax attaqué nu. le fait que mu soulever débat boobu rek. nit ñi di ci waxtaan rek. Mhm. déjà pour ñoom c'est un gain parce qu'ils sont en train communiquer sur leur existence. c'est des lobbies très puissants en matière de communication. nañu leen moytu ci débat yi ñuy soulever. mais quand un président de la république dit tant que maa ngi nekk président de la république loolu du fi am. mais ça devait clore le débat mais lu tax débat bi duñ ko clôturer. parce que ñoom lobby yooyu c'est même lobby. ñoo bëggul débat bi fay. et ils vont toujours di monter quelqu'un qui va dire li état bi wax doyut rien que pour gën a guddal. Mhm. débat bi. mais un de la République qui dit que tant que maa ngi fi du fi am le débat devait clos mais bëgguñu mu clôturer parce que lobby yooyu la arrangé te bu ko bu bu bu bu leen arrangé mhm. comme xam nañu ne Sénégal tey kenn amugu fi fitu taxaw mhm. naan nañ ko def nañ ko def mhm. dañuy wër koo xam ne dinaa duñu ko def duñu ko def parce que kooku rek mooy moo fi mën a saxal débat bi kon ñi naan nañ ko def nañ ko def buñ ko def buñ ko def ils sont en train d'aider ces lobby là on devait clore le débat. ñu ignorer leen. Mhm. ñu xam ne ñii Sénégalais yii. Mhm. seen yoom yëfi caaxaan ñu nekk Sénégalais pare wuñ pour nekk. ci loolu nekkuñu ci tey nekkuñu ci suba. mais ñoom itam dañuy dugal seen koppar ci njàng meeg njàngale bi ak yeneen fànn. non mais li mais li président de la république wax c' est mhm. ku ciy dugal sa koppar te loolu tax. teel sa koppar. ku ciy dugal sa koppar. ngir bëgg fi dugal ay loo xam ne bokkul ak suñu valeur. mais teel sa koppar da ngay sa xaalis. da nga ñàkk sa xaalis cest nañu nañu nañu nañu gën a yeewoo. Mhm. cest sa dire ce mhm. wu lu dul ko képp koo xam ne yaa ngi xeex ngóor jigéen. Mhm. débat bi fay ko. parce que communication bi ñoom la ñoom la arrangé. xam nga nit ñi à force ñuy dégg ngóor jigéen doo ngóor jigéen dañuy dem ba banaliser ko. te warul banaal dañ ko war a fay mu jeex mais ko war a fermer mu jeex ñu xam ne lii lu garaaw la. bu wax ñu ñu ñu jàpp ne wax ci sax dafa graaw bu ñu demee ba dugal ci boppu Sénégal yi ne lii wax ci sax dafa garaaw. ñoom seen seen seen seen seen tentative day yem foofu. Mhm. mais bu ñu nee di leen alimenter le bi rek. Mhm. dañu koy miinal Sénégal yi ñu dem ba banaliser ko et ce serait pour la société. monsieur le maire fan nga tollu ci wàllum santé gi ci diwaanu Réfane. mbirum santé boobu aussi man bi may def campagne. Mhm. pour nekk maire dama doon wax waa Réfane. ne li ma gëm mooy ki dëkk Medina. ni mu amee sañ sañuy jóg. dox quelques mètres dox quelques dizaines de mètres. dem faju ji dem faju ji. Mhm. ci ab médecin. Mhm. wala sax un médecin spécialisé. même sañ-sañ boobu la ki dëkk Ndereb wala ki dëkk Réfane wala ki dëkk réew ma wala ki dëkk Boox wala Mbambe wala Ndorong ak foo mën di dëkk ba dëkk boo mën di dëkk ci commune bu Réfane. Mhm. dama gëm ne même sañ-sañ boobu nga war a am. wër gu yaramu ki dëkk Kaolack. wala ki dëkk Point E wala Maris. gënul wër gu yaramu ki dëkk ci commune bu Réfane. ak dëkk bu mën di dëkk ci commune bu Réfane mhm. moo taxoon ñu ne il nous faut ñu def benn maillage boo xam ne ci commune bi dinañu fexe ba dëkk bu wér-gi-yaram sori woon mhm. ñu fexe mu jege la de euh, établissement de santé structure de santé bu amutoon ay moyens mhm. ñu fexe nga am ko alors euh, bi may campagne également ma dem ci Euh, le poste de santé de Ndareb mhm. bi ma demee ma fekk ci salle d'hospitalisation ñu tëral jigéen ñi soog wasin mhm. ak seen bébé mhm. ci lal bi tëral ab malade ci lal bi malade maanaam boobu maternité amul sax fu ñu hospitalisé ma xool ko muy lu doy waar un bébé boo xam ne amagul sax deux jours ak fragilité am jigéen buy soog a wasin ak néew dooleem fragilité mhm. nga tëral ko ci wetu ku feebar xamoo dafa am tuberculose mhm. xamoo lu ma am mhm. dans la même salle d'hospitalisation sama yaram daw maye lii su ma gañee mu jeex bi ñu gañee ci lañu tabax maternité à Ndereb tabax case de santé diggante boox ak Mbaafay ak Njarnu c'est trois villages yoo xam ne sorewante ñu defal leen case de santé ci digg bi tabax case de santé diggante nguy càndi gi ak nguy bu ndaw fa ñu après ñu réfectionner carte de santé bu Mbambey mm-hmm. ensuite euh, euh, réfectionner carte de santé bu Ndorong Malick mm-hmm. bi ñu euh, pare ñu équipé mm-hmm. case de santé yu bees yi ak maternité bu bees bi ñu tabax ñu fekkoon aussi waa Refane di yeggali seen maternité ñu accompagner leen ñu yeggale ko mais doyul loolu doyul ci la ñu wut ambulance jox ko réew maawo mhm. wut ambulance jox ko reefaan wut ambulance jox ko Mbambey fii may wax yow ñu ngi wut ambulance pour ndereb mhm. yegg seegul kiyeegul nag mais mhm. fi mu nekk vraiment ci suñuy priorité la bokk donc ça veut dire que mu daj en fait euh, du daj sax parce que dina des yeneen case de santé mais au moins dina fekk ñetti poste de santé yi ku ne am ku nekk am am ambulance ensuite benn case de santé am ambulance parce que euh, loolu aussi nañu ko nañu ko remarqué. Mhm. da ngay dem ci centre de santé souvent mu ne la awma ambulance. Mhm. poste de santé yu bëri amuñu ambulance mais ñu Réfane case de santé sax nañ koy jox ambulance case de santé. Mhm. donc loolu la ñu bëgg. vraiment euh, continuer effort yooyu. ba nga xam ne. Euh, pyramide sanitaire bi ki nga xam ne dafa nekk à la base. muy case de santé bi. bu amee lu ko jaaxal très rapidement mu mën a évacuer le malade. vers les postes de santé. monsieur le xam nga association bu ñu wax foofu laa jëm si. <laughs> baax na <laughs> parce que li may wax nii. li ma lay wax nii euh, en fait c'est la base. <laughs> mais bu ñu amee ay case de santé. am poste de santé. mais dañu war a couronner pyramide bi. au sommet. li ñu koy couronner nag mooy ñu am centre de santé communal. nga xam ne poste de santé yi nekk ci ci ci ci commune bi. bu ñu amatee lu leen jaaxal du ñu daw di yóbbu malade yi parce que diggante Refane ak Bambey diggante Ndarab ak Bambey diggante nguy càndige wala réew maaw ak Bambey diggante Kombelaan ak Bambey. Mhm. lu ne xaj na fi. Mhm. surtout bu dee yenn maladie yi. Mhm. donc sance bi. distance boobu dafa sori. lu ne xaj na fi. ñu ne la am Bambey ba ñu daw di leen fa fekki. wala mu am xombal ba ñu daw di leen fa fekki nanu fexe mu am Refane ci sens boobu ci la Assad boobu ngay wax ci lu juddu. Euh, avec le président Daouda Diouf. ñu koy saluer au passage. di ko nuyu di ko gërëm hmm. ci euh, liggéey bu am solo bi muy def avec toute l'équipe de Assane hmm. toute l'équipe hmm. le secrétaire général les trésoriers toute l'équipe de Assane mention spéciale mais mention spéciale aussi à la jaspora maanaam doomu Refane yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew parce que euh, idée bi ci ñoom la jógee ñoom ñoo njëkk ne waaye ñun est-ce que duñu daje ñu tabax hôpital Refane fu ngeen ci toll alors fu ñu ci toll. ñu ngi ciy dox ñu ngi ciy dox. ay jéego yoo xam ne pour le moment. jéego yi jéego yi population askanu Refane la ñii ngi joxe seen i dërëm. ñii ngi joxe seen i ñaar dërëm. ñii ngi joxe seen i juróom kenn ku nekk li nga man ci Assane. kenn ku nekk li nga man pour Assane am xaalis. yaa ngi ci ba ci les chef religieux. chaque famille religieuse tey. ci Refane ñu ngi dajale autour de leur xalif. seen xalifa mu ngi ñu ngi daje. di jox xalifa bi muy jox Assane. les famille religieuses laa la wax de. ñu ngi ci impliqué wu ñu ngi ci impliqué wu densément. muy loo xam ne engouement boo xam ne dama ci bëgg man. dama ci am contenté parce que dama yàgg di wax waa Refane. ne leen ku ñu ne ab jàmbur mooy jóge ci àll ba ñëw. soqali refan mhm. def ñuy nax lay jariñ refan mhm. ci ñun lay déparé état ñëw fekk ñu ci mhm. ensuite y a des y a yoo xam ne boo ko commencé état def la ciy fekk parce que danaa attention lii man la waroon comme ñii commencé nañu ça veut que ñii yitteel na leen ensuite lu ma fa def du yàqu je pense que loolu la Assad wane ànd ci ak la commune mais ngeen may ma aussi vraiment ma sant gërëm le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr il a été très attentif. Mmh. à demande ñu ngi koy sant di ko gërëm. Mhm. le ministre de la santé. mais aussi sant gërëm. Mhm. benn doomu Bawol. boo xam ne mm, euh, li muy def ci Bawol. Mhm. Euh, bu ko ñi nga xam ne ñëpp am nañu kattanam ak turam bu ñu ko amoon ñi ko am ñëpp bu ñu ko doon def. Bawol dina gën a sori. muy vraiment suñu doyen suñu xarit Xaadim Samb. Khadim Samb. Mhm. yàlla na ko yàlla fay. Mhm. yàlla nañu ko yàlla fayal. au nom de toute la commune de Réfane. ci turu président Assad Daouda Diouf. Mhm. ci turu commune bu Réfane yëpp ci turu maire bu Réfane. ñu ngi sant ñu ngi gërëm le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. ak le doyen Khadim Samb. léegi yéen commencé ngeen tabax bi. commencé guñu. waaye def nañu délibération bi au niveau de la mairie. pour délimiter nañu fi nga xam ne fii la fii la hôpital bi war a nekk. Mhm. te gëm naa ne balaa moo yàgg. Mhm. incha allah rabbi dina am ay jéego yoo xam ne. Mhm. dina dal xel bu soobee yàlla c'est-à-dire bëgguma <laughs> communiquer trop. ci yenn aspects yi. mais je sais que. tey doomu Refane ak fu mu mën di nekk. tey mu ngi surveiller de très près. mu ngi jël alalam di ci def. pour que loolu yàlla sottal ko. ñu wax ci infrastructure yi tali yeeg yoon yi xàll yi nga xam ni moom mooy dugg ci biir Refane naam du ko seen compétence état mooy defar du bari yoon wi waaye am na lu ci sooxe am na lu ñu ci war a def itam. waaw pour yoon yi dañuy sant yàlla parce que Refane. Mhm. Euh, comme li ma la wax euh, autoroute à péage bi. Mhm. def ko jéggi xar ko ñaar. Mhm. muy jafe-jafe nag vraiment fu ma toog wax naa ko fa. jafe est-ce que ñëw nañ de dimbali leen ginnaaw jafe-jafe Ageroute la moo xam ñi nga xam ne ñoo nekk. di liggéey non foofu moo ay mm-hmm. des na. ndimbali des na. moo leen sonal moo moo ñu sonal. foofu moom ndimbali des na. Mm-hmm. parce que wax dëgg yàlla ñun li ñu waxoon. Mm-hmm. bu ñuy tabax autoroute à péage bi saa bu ma leen mësaay interpellé dañ ma wax fépp foo xam ne yoonu charrette jaaroon na fa. dañu koy bàyyi mu jàll. dañu fa defal tunnel mu jàll. mais à l'arrivée mhm. demewut noonu fatt nañu yoon bi fatt nañu yoon bi léegi da ngay gis koo xam ne dafa war a dem tool mhm. euh, boo xam ne toolam boo xam ne quatre cent mètres la nekkoon ci ginnaaw këram léegi day def deux kilomètres pour dem ci si mburngal bi mhm. dafa deux kilomètres pour dem ci tool bi muy quatre kilomètres yoo xam ne quatre cent mètres nga waroon def pour yegg ci tool boobu loolu doy na waar metti na metti na trop te fu ma toog wax naa ko fa wax naa ko waa AGEROUTE wax naa ko l'administration territoriale muy lu metti am na ñoo xam ne sax dañu mujj tool bi bu fekkee vraiment amul solo trop. Mhm. nga mujj maye ko. wala nga jox keneen bu di ko bay parce que détour bi ngay def pour mhm. yegg ca moo jafe. Mhm. et day impacte les familles. parce que famille yooyu aussi lañu daan jëlee ca tool ba mu bëri mu néew. moom la ñu daan dundee. est-ce que du indi ndóol gu bari. ah si si si ça ça impacte vraiment l'économie rurale. économie commune bi moom. traverse autoroute à péage bi. vraiment indi nañu jànkante yu baree bari. kooku moom nañu ko nañu ko reconnaître. Euh, Euh, bu dee. xàll yi xàll yi. Mm-hmm. Euh, yàlla dafa dogal ab dafa euh, tëli piste bi nga xam ne. Mm-hmm. moo jokkale commune bu Refane. Mm-hmm. ak la route nationale numéro trois RN trois à partir de Kaba. piste boobu dañu toog ay at mu nekk ci yàqute bu doy toog nañ fi daaw jéeg sax. toog nañ fi daaw jéeg. ci période nawet bi. période boo xam ne pour gros porteur joge ci tëli bi. Mhm. dem reefaan chargé sax dafa mujjoon jafe. Mhm. ñuy embourbé wu ndax piste bu yàqu. mais yàlla mi dara teewut. Mhm. Euh, grâce au fonds d'entretien routier autonome. ma ci profité nag vraiment di gërëm. le ministre. Mansour Faye. ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement. ak l' administrateur du FERA monsieur Mamadou Faye mon ami et frère Mamadou Faye. Euh, vraiment accompagné nañu ba piste boobu defaraat nañu ko. ba day soog a pare. actuellement moom. vraiment jóge Kaba. dem Refane. nekkatul problème nekkatul problème. vraiment yomb na trop xanaa kay li ñuy ñaan mooy. Hmm. xam naa xëy na ñoo ngi may dégglu. Hmm. président la république aussi bul ma déggee. Hmm. ñu dimbali ñu nag. Euh, ñu ñu ñu ñu ñu continuer. mu bañ a yem ci piste. vraiment ñu defal ñu ko tëli. nga xam ne poussière beeg yooyu. ensuite pour même pour durabilité bi. parce que piste yàggul. piste boo boo ci dawee deux ans trois ans day bëgg a dem. te vraiment euh, je pense que boo fa defee tëli c'est plus économique. Mhm. parce que tëli boobu mën na toog dix ans. dix ans bu fekkee piste bi sax boo yàqoo nga defar ko. Mhm. peut-être deux à trois fois yoo defar piste. Mhm. deux à trois fois yoo réfectionné piste. moo gën a cher tëli. donc pour être vraiment pour rationaliser. je pense que il faut de plus en plus ñuy dem ci yooyu. en tout cas ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanaat. Euh, le ministre ak euh, maanaam Mansour Kane sax. moom aussi nekkoon na soo nekkoon na ministre foofu moo tax. ma ngi koy ñaanaat ministrement su Mansour Faye mhm. vraiment lu ñu mën a accompagner mooy le fonds d'entretien routier autonome mhm. pour que vraiment foofu ñu def ko tëli mhm. pour préserver investissement ba fa ne parce que boo ko defee tëli c'est au moins pour une bonne dizaine d'années boo xam ne xëy na dootoo ko dootoo ko laal monsieur le maire li mu fi jot a jukki yëpp tey maanaam élection bu woon suba la kon da ngay sampaat sa ndënd ngir eggali say chantier am déet waaw en fait mais mais des na sax parce que mbirum courant bi waxaguñ ko. électrification rurale waaw waa <laughs> xam bu ñu bu ñu jukki ci rek ak 500 lampadeer yi nga xam ne njiitu réew mi wax na ko. Euh, waaw waaw loolu. loolu aussi vraiment mhm. espoir la bu rëy. Mhm. boo xam ne président de la république euh, vraiment bu ko defee tey gëm nañ ne dina ko def. Mhm. dina nekk lu am solo ci gox yi nga xam dañ nekk ci àll bi. parce que dañu amay xar di koy sàmm. dañu amay nag di koy sàmm. te lëndëm yenn lëndëm yi. Mhm. ci la saay-saay si profito di jël suñu xar yeeg suñu bëy yeeg yu demee noonu. Mhm. kon vraiment loolu moom dañu mhm. koy saluer. vraiment rafetlu ko. ci commune bi tey am na ay jéego. mais ci commune bu Refane. Euh, bi may campagne toujours. dama leen doon wax man électrification universelle laa gëm. ni ngay duggee ci commune ñun doo duñu naa koñ sàngam amul courant. pour dama gëm ne noonu nga war a duggee ci commune bu Refane dëkk yëpp am courant. yàlla defal nañ ko. suñu dernier village bi amutoon courant. Mhm. taal nañu ko yaa deux semaines. tey fi may wax yow. Mhm. village yi nekk ci commune bu Réfane yëpp. am nañ courant. am nañu courant mhm. maintenant am na yoo xam ne tàkkagul. mais samp nañu poto yi. ba takk nañu fil yi. yooyu c' est des c' est des c' de ASER. mais yi nga xam ne commune bi moo ko doon électrifier yëpp takk nañ. yi nga xam ne ASER moo koy électrifier. bu ñu tàkkee tey. Mhm. mooy atteindre nañu. électrification universelle ngay wax nii dafa mel ni Refane moom mi ngi ci émergence de. Ah non Refane mu ngi ci émergence mais loolu aussi nga may ma ma gërëm ci son excellence le président de la république. Mhm. Macky Sall. Mhm. parce que nag euh, euh, bu ñu peccum liir bu neexee. yaa jaa jàpp ca mbagg ya. Euh, en deux mille quatorze deux mille quinze je pense. deux mille quinze daf ñu recevoir. muy man la ak le ministre Mor mm-hmm. ak le ministre Omar Gueye ak euh, madame la maire Yaku Kan mm-hmm. ak suñu benn kilifa diine bi mu ñu recevoir mu ne ma yow Réfane lan mooy sa problème ma wax ko ko mu ne ma dinaa la jàppale lam ma waxoon la def président de la république mm-hmm. lam ma waxoon def na ko kon président Macky Sall au nom de toute la commune de Réfane toutes les populations de la commune de Réfane ñu ngi koy wax jërëjëf parce nag ah, ñun li ñu am. Mhm. ci président Macky Sall. Mhm. ñu ngi koy soog a am ci état. Mhm. mais aussi bi ñuy dugg ci politique loolu la ñu gëmoon que ñun waa Refane ci état la ñu bokk. dama koy wax président bu bon amul ah. de Senghor à Macky Sall. président boo fi gis am na lu mu liggéey Sénégal. mais ñun waa Refane dina daawut yegg si ci ñun li ñu manqué woon mooy président bu ñu yëg li sunu cër ci réew mu jox ñu ko. loolu la ñu am ak président Macky Sall. Mhm. tey bu ñu nee commune bu Réfane. Mhm. dëkk yëpp am courant. c' est grâce au président Macky te bi ñu ngi ñëw Réfane moo amoon courant ak mbaam Mbambey. Mhm. ak Ndereb. yii ñoo amoon courant bi Macky Sall di ñëw ci léegi daj na macha allah. ok moom nee na léegi euh, élection locale du dugg ci benn combine yow candidat nga foofu. non élection locale. président makisaal Sall bu bëggoon ñëw ànd ak man du dugg ma bañ. Ah, loo xanaa mooy. non kon ma bañ cest à man waa Réfane falaa laa juddoo fa laa yaroo. Mhm. fa màggee bu ma leen doyee nañ ma fal bu ma leen doyut nañ fal keneen. waaye bu ñu xaar Macky Sall joxoñ ma ñu soog ma fal ñoom ñoo ma gën a xam Macky Sall li ñu xam ci man Macky xamu ko ci man su ma jubee mhm. su ma baaxee mhm. ñoo xam nañu su ma dëngee su ma bonee xam nañu maanaam élection locale pour man. Mhm. waa reef diggante waa reefaan la ak waa reefaan. Mhm. nañu xool ka gën ca reefaan. Mhm. ka ñu jàpp ne moo gën ca reefaan. ñu fal ko bu man nañu fal ka mu doon. point barre ensuite candidat nga. non bon évidemment candidat la. mais euh, man li mu gëm mooy bu boobaa aussi. bu boobaa. mais est-ce que sa bilan bi doy na pour nga amaat ñaare mandat bi nga bëgg. bon ñoom ñooy évaluer bu leen doyut nañu fal keneen. cest à dama leen ne. Hmm. man waa toujours dama leen ne sama relation ak yéen. Hmm. du nekk une relation politique. Hmm. relation askan ak doomam dong la mën doon. bés bu élection jotee li ma leen di digal mooy def leen li may def man li may digal sama bopp man élection lu coow li bëri bëri damay bàyyee ba jour élection ba ma dem ca mañ ngàcc ba def li dal sama xel waa aussi toujours loolu laan di wax élection locale mairie Réfane commune bi. bii di ñëw. képp ku dëkk refaan bu ci xeex bu ci xuloo bu ci xastante bu ci saagante bu ci wax ba mar mhm. xaaral ba bés ba mhm. nga dugg sa mbañ ngàcc ba defal lu dal sa xel ki gën ci refaan yàlla na gañe mais am nga njort tey ci bilan bi nga xam ne moom ngay teg ci ah, ah oui ah oui bilan mhm. bu dee bilan rek lañ fa def moom nit mësul jiite refaan def ko ay la yëwét maintenant bu leen doyee. Mhm. xayrun mais bu leen doyul aussi man ku ñu fal ku ne <laughs> ma gunge ko ne ko monsieur le maire. <laughs> monsieur le maire ñu ngi dégg benn coow. di mhm. ki démb ba léegi waa Pastef Patriote ñoo defoon benn levée de fonds ngir ut euh, koppar ngir collecté ngir mën a préparer wu ci jongante yi nga xam ni certes moom la ñuy jëm euh, demoon nañ ba récolter sax lu toll téeméer million ak lu teg ñu gis communiqué ministre de l'intérieur euh, muy. ay ay article ay loi yi nga xam ne nag day tere loolu est-ce que loolu nekkul di nasaxal démocratie itam bu ñu demee bay tere parti politique yi ñu war a jëlee seen fonds ci biti réew. Euh, waaw jërëjëf xam nga euh, mbirum xaalis. Mhm. dañ lu doy waar. man nag je apprécier positivement nit bokk ci parti. Mhm. nit bokk ci parti politique yëkkati xaalisam def ci parti boobu parce que noonu la war a doxee. Mhm. maintenant dafa war am yoon yoon woo xam ne état dina xam lii nu mu demee parce que nag dans un pays organisé. Mhm. du la neex nga def. am na loo xam ne boo ci sañ amee sañ-sañ aussi du nu la neex nga koy defee ñoom bu ñu bëggee dajale xaalis nañu dajale xaalis. Mhm. mais en respectant li nga xam ne moom la charte réew mi wax. Mhm. te bi ci itam waaw. parce que sinon c'est la porte ouverte. à toutes les dérives am nga yu demee nii levée de fonds. Mhm. tous azimuts. Mhm. aucun contrôle aucune organisation mais mën na nekk prétexte pour blanchir de l'argent mën na nekk prétexte pour blanchir de l'argent c'est-à-dire ñoom ñu comprendre mhm. les soucis de l'État les soucis de l'État mooy ñu bañ a nekk wañee woo réew mi ci pëccëxoo dans n'importe quel domaine nag bu dee ci xaalis bu dee ci sécurité bu dee ci éducation bu dee ci santé loo gis dafa am ay normes dafa am réglementation boo xam ne ca la war a obéir mhm. ñoom bu ñu ko defee tey mais suba mhm. keneen mën na jóg ne levée de fonds pour nangam ñi nga xam ne dañu amoon xaalis bu ñoo xam ne bëgg dañu bëgg mu dugg Sénégal te xamuñu nu mu nu koy dugalee Sénégal. kon d' nga ci communiqué ministre. non je suis tout à fait d' accord. Mhm. c' est à waa PASTEF. man dama leen di encourager. militant moo war a yor parteem mhm. ci cotisation mais nañu conformer wu à la législation mhm. on ne pas lever des fonds n'importe comment li ministre bi wax c'est tout à fait normal dans un pays organisé mënoo xëy rek xaalis ju jóge fu ne te xamoo xaalis boobu ku ko yónnee quels se ses mobiles mhm. et cetera et cetera tey bu ñu nangoo mu jógee fu ne duggee nu ne mais imagine un candidat à la président de la république benn lobby jox ko un milliard mu jël mais bu gañee mais lobby bi ko joxoon un milliard deux milliards trois milliards. Ah, day xaar retour de l' ascenseur. <laughs> Ah, retour de la ascenseur boobu. Mm-hmm. mais ce sera au détriment du peuple sénégalais. am na solo c'est-à-dire bu ñu ko def politique politicienne. Mm-hmm. waa Pastef aussi quelque part. Mm-hmm. wax dëgg yàlla man loolu laa leen di xaw di mere. ils font trop dans le populisme. ils font trop trop dans le populisme. maanaam ils veulent coûte que coûte montrer que. lii baaxul non avec vraiment benn énergie boo xam ne saana n'en vaut pas la peine. ça n'en vaut pas la peine mhm. euh, oui patriote patriote oui. Mhm. mais nous sommes tous de patriotes. il y a des patriotes qui sont morts ko ñun ñuy gànne àdduna. mais quand on peut penser que àdduna bi euh, ça dem ça a démarré en 2014 maa ngi suivre benn xale bu jigéen je pense réew mi la bokk mu leen mu koy wax seen benn kii est à la télé. mu mhm. ne leen mais yéen ça euh, l'histoire du Sénégal l'histoire de la politique du Sénégal n'a pas démarré en 2014 mais quelqu'un comme Boubacar Sall de Thiès na ko yàlla yërëm. Mhm. mais li mu daj ci politique Ousmane Sonko ak man ak génération yi demee ni ñun du mënatuñu ko daj ci politique. son excellence le président de la république Abdoulaye Wade li mu daj ci politique li xeex ci politique li mu ko indil comme tolof tolof. Mhm. Ousmane Sonko mënul yegg foofu ak suñu génération xale yu ndaw yi ak ñi nga xam ne ñun ñoo leen mag. Mhm. donc ay patriote yàgg na fii. dafa mel daf leen yëngal nag. Ousmane Sonko non non du tout du xam nga man je suis un démocrate man. Mhm. man je pour la démocratie. je pour une expression plurielle de la démocratie. ensuite ba mu bëgg nit ñi ñu tinki leen ku nekk di def li daal xelam ci politique. Mhm. na kenn ku ne ñëw exposer ay idéem na kenn ku ne ñëw exposer programme na kenn ku nekk ñëw wax li mu gis. Mhm. ak ni mu bëgg na leen Sénégal di doxee. mais bu ñu paree. Mhm. nañu bàyyi sénégalais yi. Mhm. mais au contraire on ne aussi en deux mille vingt et un vouloir imposer aux sénégalais une pensée unique président de la république wax na ko barki dem boo demee ànd ak Macky ñu bëgg a gëmloo sénégalais yéen yow nit ku bon nga boo saaga Macky Sall ñu bëgg a gën la gëmloo sénégalais yow nit ku baax nga. quel est ensuite c'est des jeunes qui le Des jeunes qui devaient avoir un esprit progressiste, qui évolue, qui avance, une expression plurielle de la démocratie. Mmh. Mais ce sont ces jeunes aujourd'hui qui veulent imposer une pensée unique. Mais pour quelle raison Ça n'a pas de sens. <laughs> ça n'a pas de sens. Mhm. Des jeunes. Moi, mhm. vraiment, j'aurais aimé mhm. que jeunes yi ne eh, attention. Mais tu sais, Ablaye Wade, Abdou Diouf, Senghor, quand je me rappelle bii bii bii Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ñii kii naa Ndiombor kii naa madame Forage ak monsieur Moulin madame xaw ma c'était tellement beau aucune violence aucun mot déplacé mais ak bii moom mais ak bii hmm. boo waxee ñu saaga la fi mu nekk y a des intellectuels qui n'osent pas la bouche y a des intellectuels qui pas ouvrir la bouche parce que nee nañ boo waxee ñu saaga la ndax di leen ciy fekk waaw mais pour quelle raison et c'est des jeunes qui le font <laughs> am na solo et du rupture c'est une <laughs> dictature kay. <laughs> monsieur ñu ngi lay sant bu baax la gërëm waxtu bi dab nañu. déjà euh, une de temps on est cinquante huit minutes. Oh. Euh, waxtu bi am na solo bu baax a baax ñu bàyyi la rek nga daal di gërëm ñi nga xam ni ñoom ñoo di commune bu Réfane euh, vraiment waxtaan neexoon na trop. ñu bàyyi la nga gërëm di la sant itam. ci li ñu gërëm waa réew mi réew mi FM. vraiment ci invitation bi. Mhm. vraiment ça ça a été un mhm. euh, sama disponibilité à chaque fois que vous aurez besoin de moi. jërëjëf mais gërëm. Mhm. santaat askanu Refane. askan la boo xam ne il m'ont très tôt adopté. dama nekk xale. ñu wóolu ma ci yu bëri. c'est-à-dire euh, man à à vingt deux ans xam nga vingt trois ans ci la ñu créé association pour le développement de Refane. li may nekk nekk xale ñu ne ma yaay jiitu làmb yi nga daan dégg reefaan yëpp. Mhm. boobu ay bombardier yooyu. Mhm. ay zàlloo ñoo nekkoon seen digg doole. Mhm. ñun ñoo leen daan indi reefaan. de très grands combats de lutte. yoo xam ne ñoom Xaadim Samb. tout le monde. tout ñoom Gaston Mbengue. ñëpp kenn daawul tardé làmbu reefaan. c'était nous. association pour le développement de Refane ADR ma jiite woon ko. Mhm. donc depuis boobu. Mhm. waa Refane seen loxo mës sa jóg ci man. Mhm. moo tax dama ne lu ma leen defalul. dama ko amut. am na solo vraiment confiance bi ñu am ci man. ba ma nekkee xale ba léegi. te mësul teggeeku dama leen di bàyyi ak yàlla. mais aussi mention spéciale au chef religieux de la commune de Refane. ma ciy jiital vraiment les imams ratib. bu Refane imam Aliou Dione bu Ndareb Euh, imam Abdou Ndour bu réew maawo imam Ndiaga Faye mhm. ak imam yi nekk ca gox ba yëpp mhm. ak kilifa diine yi mhm. rawatina nag vraiment suñu maire honoraire oustaz Abdou Faye nga xam ne li muy def ci refat ci diine ji ak ci ndox mi ak ci courant bi gëm nañ ne yàlla dina ko fay mention spéciale vraiment gërëwaat santaat nag l' équipe municipale de la commune de Réfane am na solo ñoom aussi awma seen fay parce que man fi mu nekk nii bu wax ji kii rek ñu ne ma demal wax. Mhm. mais liggéey bi c'est e. am na solo liggéey bi. Mhm. seen l'équipe municipale. Mhm. ñooy toog na ma monsieur le maire lii de urgence la su ñu ne lii urgence la ma jóg mbëkk sama bopp fi bërëb ñoom tamit ku nekk jóg mbëkk sa bopp ci ci bërëb loo am nga indi loolu moo ñuy defal tey. ñuy am ndam. am na solo kon ñoo ngi sant ñëpp. Mm-hmm. di gërëm ñëpp. Mm-hmm. encore une fois. Mm-hmm. ñaaxaan nit ñi ci respect mesure mesures barrières. pour que mbas mu jógee fi. na solo am na solo. Euh, ngeen may ma tamit vraiment ma sant nag. kilifa diine ci réew mi. am na solo xalif généraux yëpp. vraiment. Euh, santaale nag sama sama sama sama wasila. Euh, nga xam ne. mu ngi gaawaan muy Serigne Mbacke Anta. ak fam njabootam gi ci gaawaan yëpp. ay ay ay taawam mm-hmm. sëriñ euh, Axma Mbacke bu mm-hmm. sëriñ Mor Fati Mbacke mm-hmm. ak sëriñ Fallou Galas bu sëriñ As Fale ak euh, vraiment Serigne Astako Mbacke. Mhm. njaboot gi yëpp. Mhm. ak waa Daaru Salaam yëpp. Mhm. man ndox dëgg yàlla nag ngeen may ma. am na solo taalibe gi am na solo doon ma def ma xaw a yitteel lool. dëgg am na solo waaw. maam Cheikh Anta daal. waaw lépp la daal waaw. sant la di la gërëm bu baax. ci Djibril Thiaw jërëjëf kon mbokk yi jox leen dig daje ba beneen dimanche ak beneen invité fii ci émission euh, gox bi ci rajo Rewmi FM.